Thank <laughs> you. Toujours dans votre acte du jour de ce mercredi 13 décembre 2023 sur la chaîne des grands événements suite sans fin l'EQDP, koy dippee muy li terrain de 500 mètres carrés Vous n'êtes que ci littoral ba nekk ci corniche almadi bi dox ci diggante ki nga xamante général ou Omar président confédération africaine de surf ginnaw bu mu abrité fofu depuis plus de 15 ans manam fukki at ak juróom mi ngi foofu teg fa benn restaurant boo xamante ni ñu ngi ko dëppee Surf Paradise restaurant bi di abrité li nga xamante ni mooy centre de formation bi nga xamante ni ñëpp ñoo xamante ni dañuy jàng surf ci àdduna foofu la nekk mu occupé ko ci ay papiers yoo xamante ni par délibération la muy mairie de Ngor jox ko ko mu daal di accomplir lépp loo xamante ni jëm na ci régularité lii di terrain boobu nga xamante ni moo nekk foofu ca littoral ba nekk ci corniche ouest bu Almadies ginnaaw bu mu ko occupé nag benn général de l'armée l'armée nak dafa ñew xamal ni ko du tollu ci 500 cent mètres carrés boo xamante ni moo abrité li nga xamanteni moy Omar Sey def nako parking bi nga xamanteni mo wara war a abrité lii di restaurant Surf Paradise mom dal dafa bëgg a tabax këram ndaxte moom moo ko moom en tout cas lu doy war lo xamanteni tay depuis bobu ba tey ñi ngi jaabante diggante doscos di dellu si waat ki dañuy sukkandiku nak ci benn occupation illégale la nga xamanteni moy général de l'armée ginnaw moom bu mu ñëwee atum 2017 dal dina mom mom terrain bi bu mu porté plainte foofu ca doscos ci kaw convocation bi Descos jagleeloon kii nga xamante ni mooy Omar Sey dañ ko xamal ni que daal kii nga xamante ni moo la convoqué amul sax bàyyi ba noppi daal di lay convoqué yow demal nga régulariser say papier continuer sa liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy def di participer ci développement économique bu Sénégal ginnaaw bi nga xamante ni da ko def à usage commercial maanaam di fa utiliser ay employé ñuy xëy nga leen di fay weer ba noppi di yokk ci koom-koom bi di jënd ay bagages yoo xamante ni dafay delluwaat ci askanu réew mi kon demal nga continuer sa liggéey mais mbetteel bi ñu am dañu ñëw ba 2023 kii nga xamante ni mooy doom ci général de la armée ñew yëkëti waat wax jooju ginnaw bu mu ne mom day jël li nga xamanteni moy parking bi nga xamanteni mo nekk ci buntu restaurant ba nga xamanteni képp ku ñëw ci restaurant ba foofu ngay garé mom daal da koy occuper ndax ndaxte 500 mètres carrés la yoo xamante Abdoulaye Wade moko ko may te kuko ko signaloon di Vincent Bidi Vincent Bidi bobu nak yaakaar naa ni Moustapha Wade moko jitu fofu foofu te ginnaaw loolu Moustapha Wade mo signé won li nga xamanteni moy régularisation régularisation au papier ki nga xamanteni moy Omar Sey ginnaw lolu nak je crois que lenn lañ ci jàng benn abus de pouvoir la ginnaaw bi nga xamanteni ki nga xamanteni moy Descos mom mo wara a lepp lo xamanteni dafa jëm ci walu litige foncier Descos bobu nagam ay gendarme fa ñoo fa nekk te ki nga xamanteni moy mooy doomu général Meng dafa jàpp ni que papam général la ci corps armée bi la am xeyna solidarité mën na am diggante Descos ak waajuram ju góor jooju moo mu bëgg jaay ki nga xamanteni moy Omar Sey doole ginnaaw lool nak bañu convoquer Omar Sey mu dellu ñëwaat dembu ci talaata ji convoquer nañu fofu Omar Sey ci Descos ginnaaw lool nak bu mu ñëwé dañ ko sabe?

tabax foofu kër mu noppi fatt li nga xamante ni mooy buntu restaurant bi ba noppi daal di koy bàyyil benn espace bu ndaw pour client yi di fa loolu nag yaakaar naa ni yanuwul maanaam fépp foo xamante ni maanaam dafa nekk à usage commercial dafa war am benn atmosphère boo xamante ni dafa war a attirer marketing bi jëm ci panneau publicitaire yi nga xamante ni mooy mairie Ngor maanaam yokkaat koom-koom bi foofu tey suñ ko fàttee ak benn kër boo Ormen Cojuela. ndax ci dolli président de la république Macky Sall am na ay terrain ci parti boobu muy littoral bi mais ginnaaw moom ci boppam ba mu joxee décret ne kenn bu mu fi tabaxati kër ndaxte littoral bi dañ ko war a abrité ci ay loo xamante ni usage commercial la maanaam mu taaral jëmmal li nga xamante ni mooy réewu sa Ndakaaru Njaay di suñu capital fii ci Sénégal ba noppi daal di yokk ay emploi ndaxte suñu xaymaa foofu ci littoral ba la fa am ci ay cabanoo ëpp na 30 te 30 yooyu suñ ko xaymaa dem leen foofu ngeen vérifié yi lu toll ci 135 millions dina fa génn weer bu nekk di sukkandiku ay doomu aadama yoo xamante ni ñi ngi koy yóbbu si seen ay njaboot mu leen di jëriñ tey nag doole jooju la ñu gis ni que kii nga xamante ni doom la ci benn général maanaam bëgg a yëkkati benn avis de pouvoir maanaam occupation illégale jël yëfu jaamur boo xamante ni nit ko moom ba noppi daal di fay bëgg a tabax kër en tout cas li ñu leen bëgg xamal daal maanaam ñun duñu magum xamoon naa ko magum waxoon naa la ko avant que problème bi di dégénéré wu plus particulièrement li nga xamante ni mooy centre de formation bi nga xamante ni moo abrité fii fu nekk foofu ca restaurant bi te mu war a accueillir li nga xamante ni mooy surfeur yi war a ñëw fii ci Jeux olympiques atum 2026 yi maanaam loolu la des Descos bëgg kii di Omar Seye daal di koy toj jox ko ki nga xamante ne général en tout cas ñi ngi alerté ki nga xamante ne mooy ministre des sports en tout cas mon moo fi toog moom moo war a fekkee li nga xamante ne Jeux olympiques 2026 yi continuer au pouvoir mu continuer ci poste ministère des sports donc nous jóg ah, waxti wax ji ñu jéem a xool naka lañ koy régler une bonne fois pour toutes plus particulièrement ñi nga xamante ni mooy association Ngor Debout gisoon nañu jéyee yi nga xamante ni amoon na fi weer yi ñu passé jëm ci weeru koor bi ba ay nit yu bare ñàkk ci seen bakkan muy ay journée de sanction lan moo ko indiloon coowal suuf te tey Ngor Debout boobu yëpp dañoo taxaw ci ginnaaw ki nga xamante ni tey mooy Omar Seye di doomu Ngor di un digne fils de Ngor représenté pays dignement dem liggéey ci à l'extérieur indi fi ay drapeau indi fi ay médailles ci wàllu surf représenté le drapeau tricolore du Sénégal partout à travers le monde hisser la démocratie démocratie s'est lépp loo xamante ni dafa jëm ci ay rapport diplomatique suñ ko sukkandikoo ci wàllu surf maanaam muy sport ba tey mu doon confédération président confédération africaine de surf yaakaar naa ni kooku tey doomu Sénégal il est un digne fils du pays amul keneen ku ko gën a yelloo ci Sénégal nekk doomu général nekk doomu colonel nekk doomu président nekk doomu ministre nekk doomu directeur généraux nekk doomu baadoola ñépp a yem ca loi kon je crois que alerte lañuy ñuy lancé tey jëmale ko ci ki nga xamanteni moy son excellence le président de la république Macky Sall plus particulièrement mom mi jëloon décret xamal ni que littoral bi bu fa kenn tawax kër ñu koy xamal à travers nos zones de sur VIP People TV que ki di ben doomu général dafa bëgg a 500 mètres carrés dal di koy tabax këram bala béy di wees mbuus nag jóg leen ngeen wax ci son premier ministre Amadou Ba bi nga xamanteni ni fi mu dëkk ak fofu sorewul mën na doxantu ndànk guddi dem xolé ndax li doomu général bi bëgg a def na maanaa wala yenwul maanaa naka ngay gisee restaurant nga ne si kanamu restaurant bi dama fay tabax sama kër ndaxte maître Abdoulaye Wade moom ma mayoon suuf bi est ce que maître Abdoulaye Wade am na sañ-sañ di mayee suufu Sénégal soo ñu ne woon sax tey ñun ñoo ko jënd ci notaire temps lañ ci def ci xaalis defu leen si ñaari salaamaaleykum Omar Sey jël xaalisam investir ko defar parking bi nga xamante ni gis nañu ñu meloon au départ tey ngeen ñëw bëgg ko jaay doole en tout cas li ci am solo daal kii di Omar Sey ba mu génnee foofu démb fii nga xamante ni mooy def ko ginnaaw bi ñu ko mettre en garde à vue arrêté ko kii di Omar Sey yëkkati na ay kàddu poste dara ci li nga xamante ne mooy page Facebook am ginnaaw bu mu rendre ni que occupation illégale la kii nga xamante ne benn doomu général bëgg abusé ci pouvoiru papam pour arrêter kii nga xamante ni mooy patron Surf Paradise di Omar Sey ginnaaw loolu nag kii nga xamante ni président confédération africaine de surf di El Omar Sey ginnaw biñ ko félicité ki ko félicité nag du kenn ku dul fédération internationale de surf ci liggéey bi nga xamante ni def na ko ci wàllu surf jëm ci Afrique ba noppi ñu arrêté ko foofu par la gendarmerie nationale sénégalaise ginnaaw loolu nag mi ngi xamal ni que daal dafay rëbb bañ lépp loo xamante ni dafa jëm ci benn pollution boo xamante ni dafa war a abriter li nga xamante ni mooy parking restaurant bii di surf paradise nekk ci corniche Almadies mu koy sedd benn doomu général de l'armée boo xamante ni à usage d'habitation la koy def mu doon benn parking boo xamante ni mi ngi situé wu foofu ci kanamu li nga xamante ni moo war a abriter Lydie. Compétition surf-tigée olympique 2000, 26 euh, yi muy jeunesse bi nga xamante ni tey ñoom ñoo fa war a ñëw muy rappelé woon daal que kii di Omar Sey nee na ma daal ñi ngi occupé li nga xamante ni mooy site bi depuis plus de 15 ans di employé plus de 50 employés foofu tey ñu jël benn doomu général bëgg ko teg ci kanam en tout cas li mu mën a xam ne daal moom tey du ko nangu dina abuser tous ses pouvoirs ay mbokkam ñëpp jóg nañu doomu ngor yëpp jóg nañu taxaw ci kanam pour indil ko son soutien parce que mënuñu jàpp benn abus de pouvoir boo xamante ni mën a exister Sénégal jamono jii ñu wax bi nga xamante ni ñi ngi naan indépendance de la justice amu fi ñi ngi les lépp loo xamante deux poids deux mesures lañ koy jëlee ci justice ci wàllu loi je crois que il est temps que tey ñu éclairer la lumière xamal ni que daal ñëpp a yem ci loi fii ci Sénégal nga doon doomu général doomu colonel ak doomu baadoola doomu miskina yéen ñëpp a yem ci loi je crois que le président de la République Macky Sall à travers son ministre de l'intérieur Sidiki Kaba bi nga xamante ni moom yor gendarmerie ak kii nga xamante ni ministre de la justice nañu jël le dossier en main avant que ça soit trop tard car dama foog ni que li fi jotoon xew ci ngor ñaanuñu yàlla mu xewaat fi parce que xam nañu

quiétude la ñu gën a soxla paix lañu ñu gën a soxla instabilité soxlawuñu ko ci réew mi maanaam lépp loo xamante ni day indi jàmm moom la soxla pour que loolu mën a am nag yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite askan bi di ministre de l' intérieur ministre de la justice le président de la république Macky Sall kii nga xamante ni mooy son premier ministre Amadou Ba ak le ministre du sport ils n'ont qu'à se saisir de ce dossier ñu xool lumière fan la féete kan moom moom dëgg ñu jox ko dëgg en tout cas muy lii nga xamante ni mooy Omar Seydi di patron Surf Barlaye mi ngi koy ñaawlu ci benn abus de pouvoir bi nga xamante ni benn doomu général de l'armée moo ñëw bëgg ko jaay loolu alors que général bi mom moomoon terrain bi en 2017 ñu ñëw ba 2023 doomu général bi bëgg mom terrain bi te nee mom moom Ablaye Wade moko ko ko may yaakaar naa ni 2017 ak 2023 Ablaye Wade nekku fi pour mën a maye ay terrain en tout cas muy lumière bi ñu leen loon ci litige foncier bi nga xamante ni dox na ci diggante doomu général boobu ak kii di Omar Seye di patron Surf Paradise